waajal bi nak commencé dañ ko depuis avant école de tëj ñun lañu commencé waajal école bi ubi ndax euh, chaque année day am décret bu ñuy wax décret bo xamantene découpage de l'année scolaire té décret de découpage de l'année scolaire bu daw bi toujours fay wax kañ lañu ubi dewen donc comme xam nañ kañ la ñu dañ koy waajal waajal bi mom moy euh xol année bi nan la doxé lan lañ ci def lo xamante ni baax lan lañ ci def lo xamante ni des ak lan la ci def ñak def lool nak moy bilan bilan boobu nag duñ ko def ñun kese dañuy dajeek souvent syndicat lañu lañ a dajal ñu toogandoog ñoom ñaari fan ñu faram fàcc lañu def yëpp déglu leen ci xool lan lañ ci ànd ak lan lañ ci àndul xool ci seen xalaat biñ ko defee pare ñu ne leen lii moo am ren déwén nag yan grande ligne la ñuy tracé lan la ñu war a def pour préparer euh, ouverture bi mooy feuille de route bu bees feuille boobu bu ñu ko defee ba pare d'accord ci ak syndicat yi dañ ne du ñoom kese. ñu woo partenaire technique financier yi moom mooy euh, bailleurs yi ñuy jàppale muy UNESCO UNICEF USAID ak ñeneen ñoo ci ñu nekk ak coopération canadienne ak yeneen coopération japonaise yëpp. ñu toogaat ak ñoom defaat ñoom ñoom même waxtaan bi wan leen li ñu def ñu wax ci seen xalaat parce que ñoom dañoo nekk ñu jàpp ci école bi ñu jël dajalewaat ak association des parents d'élèves yi ak association maires yi association président. Euh, Euh, de département yi ñu boole ci aussi organisation de la société active en éducation lu mel ni COSYDEP lu mel coalition éducation pour tous ñun ñep dañ leen ci bolé té lool yépp préparatif la pour ñu dem ci benen ndaje bu mag bu ñu wax séminaire unique de rentrée séminaire unique de rentrée bu ñëwee nag li ñu liggéey ak ñom ñep lañuy tégaat ci table ci wala leen ni bi euh, échanger ak yeen biñu waxtané ak yeen ak li ngeen ñu wax yaakaar nañu ni bilan bi. C'est correct. ci correct a des lii lañ ko defee école bu dina mais aussi nous partageons les mesures pour une bonne rentrée ndax di nga des ci de route pour l'école, mais li ëpp solo léegi-léeg démarrage Nous nan la ñuy def bis bu enseignants le 11 élèves yi le 14 nous avons commencé bi le 14 bi loolu nag day am mesures école yi dañoo war a pare école bu am ndox dañu war a dindi ndox bi école boo xamante ni amul point d'eau dañ ko war def dispositif Covid bi sax dañ ko war a respecté ndax ñi ngi sant yàlla mi ngi wàññeeku waaye comme doo xamante ni kenn xamul kañ lay dem dañuy renouveler protocole sanitaire bi ci école yi mais aussi dinañu waxtaan ak collectivité territoriale ne leen bu ngeen di joxe fourniture nañu fexe ba ñu xale yi jot ci balaa la 14 pour que la 14 ñu ñu ñu mën a commencé.